dama ñëw feddali si sama kóllëre sama digganteeg uh, njabootu Djibo Ka ak uh, képp koo xam ne kii am ngi jàmmam nga uh, ñooñu nag mu nekk mboolo bu yaatu lool ndax du famille bu mu bokkal rek mais mu nekk ki mu doon liggéey li mu liggéey ci réew mi xam ñi mu xam bokk si ñi nga xam ne bu dee réew mi yegg si na fi mu yegg si ni bokk si ñi liggéey ba réew mi yegg si fii donc xam nañu bari donc duñ ñu woon jaale si ñooñu ñëpp di ñaan yàlla jiboo fi mu dugg yal na ko gënal fi mu jógee yal ko yàlla xaare aljanna euh, fànkal ko ay bakkaaram yëpp ñi mu bàyyi si ginnaawam itam yàlla teg si loxoom ndax euh, wax dëgg yàlla liggéey na leen liggéey boo xam ne bi ñoom war nañ ko mën a jëriñoo ci ginnaawam mais loolu yëpp comme réew jullit lañu dañu ñaan yàlla yàlla defal ñu ko ndax bu ko yàlla defee ñun ñëpp dina law ba yegg si su ñun Euh, ñu nekk nag itam euh, ay artistes sénégalais artistes africain mais nekk ay artistes haalpulaar aussi mu bokk ci suñu xeet ñu nekk ñoo xam ne comme ni ñu ko waxee si biir ci bés yu mel ni jëf ju baax boo xam ne nit ki da doon liggéey lépp dañ koy génnee ñu wax si mën a euh, teg suñu bët mu dugg si suñuy nopp ëllëg ci si biir fi ñu yàlla may ñu mën a taxaw di wax ci ñi nga xam ne ñoo ñoo indi Sénégal bu mu yegg si fu mu yegg si ñu bañ a fàttee Djibo bana fàcce ay jëfam ndax euh, génération yii di ñëw soxla nañu ay symbole soxla nañu ñu wax leen réew mi bu ñëwee ba yegg fu mu yegg si dafa am ñoo xam ne taxawoon nañ fi liggéey yàlla rek moo xam lan la ñu souffrir wala lan la ñu jaaxle wala lan la ñu yàq mais ànd ak conviction ba indi réew mi bu mu yegg si fu mu yegg si. ñàkk moom euh, ku ko def si àdduna te ngay doomu aadama ci ni ko yàlla waxee war nga am naqar ci sa biir xol waaye doomu aadama itam. du mat tànk mënul jël naqar bu dee ay doomu aadama yu mel ni yow riir nañu ci nekk mbooloo bu takk di la wut si pour wan la ni yow dong nga bàyyiwuñu la ak sa naqar war nga mën a taxawaay am taxawaay ak matuwaay ba nga xam ne di nga mën a jàkkaarloog doomu aadama yi waxtaan ak ñoom déglu seeni ñaan delloo leen ñaan loolu fekk naa ko fi tey ci kër gi di rafetlu lool gëm yàlla bi nga xam ne famille jibukaay gëm nañ ko xam ne lii ah, du jaas doomu aadama bu nekk dina dugg sa kër. dañu ñaan yàlla yàlla na yéex waaye du ki lii jombul kenn kon nag euh, ñuy rafetlu lool ci ñoom sigg bi ñu sigg nag xool képp koo xam ne jibe ko xamante na ak moom ci dundam ñu ñëw tey di feddali seen couleur rek moom ci seen kanam ñu mën a déglu ñu ñëpp gis nañ fi ñëpp kon nag loolu dañ koy rafetlu bu baax a baax mais nag xam nañ ni nag ñàkk moom noonu mën def mu ànd ak naqar mu ànd métit ñi ko jegee xam nañu lool que ne Djibo dëgg la c'était un homme d'état un homme d'état nekk ci réew mu mel ni Sénégal xeet yëpp nga war a jël yemale leen ñun dañ leen di encourager si loolu képp ko xam ne yàlla jiitale na la jiital la jox la responsabilité ci réew mu mel ni Sénégal muy réew boo xam ne exemplaire la exemplarité boobu da nga ci war a jàpp bu baax a baax parce que loolu lañ ñu nawee te gis nañu mu ko doon doxal mais nag kibir biir il était foncièrement mom Haalpulaar xam xamna cosaanam xamna na fi xamna jógee xam na xeetam mu rafetlu lool ci man li nga xamni ma ngi ci doon yëngatu occasion bu am pour euh, magnifier loolu daf ko daan def fekke na lu bëri association pour la renaissance du pulaar di am ay tolof tolof mu bàyyi liggéeyam toog ak ñoom jàppale leen ba lëf lëf li taxawaat dem ci kanam mbir mi taxawaat jëm ci kanam man nag euh, benn exemple rek la xam ne mën naa ko wax yàggul euh, le ministre conseiller euh, euh, conseil du président Omar Demba a un livre Baba le message en chantant bi muy un livre fi fekk na bu tawat bu baax sax ñu bari dégg nañ ko waye dafa il faut ma un ma téwé ka ndax du sax Baba artiste mais message bi nga xam ne mu ngi koy véhiculer ma xam carrément vision bi mu am bu muy dugal message yooyu ci ay woyam moo tax ma war a mën a teewee bés boobu fekkee mu fekk mu nekk fee ci teeru bi la woon donc loolu képp ku dugg ci internet di nga ko gis donc c'est des exemples yoo xam ni bu fekkee ni loolu am na ci kër gu mu wàññeekoo fokk nga jël sa kéemtulaay kàttan nga ñëw masu mbokk yi wax réew mi itam ñu ñaanal ko yàlla fi mu dugg yan na ko gënal fi mu jógee